والله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والاه من سراج صالح كني سابو غورو قالس من يشرون دينارا نار فك دينار نصاب مورد نصاب الذهب ورس ولا بو نصاب الذهب مورد نصاب ورس ورس دال وامي نار فك دينار رك am nga nisaab benn dinaar bu nekk ñenti gram la quart lolu boko ko multiplier ba muy ñaar fuk muy 20 da fay nek 85 gram ko am 85 gram rek ci wurus su amna ni sa amna na azaka aw fax si nga konté ñata diram ñatti ñaar téeméeri li war xin ñeel de li wari xin loon way waaye moo mu daf ko li war xin xaalis boo amee ñaar téeméeri dërëm rek waaw am nga nisaab ñaar téeméeri dërëm yi yoon nag dégg nga maanaam nisaabu xaalis daal ñaar téeméeri dërëm dafay toll cinq cent quatre-vingt-quinze grammes cinq cent quatre-vingt-quinze grammes loolu mooy nisaabu xaalis dégg nga mooy toll ñaar téeméer yi soo bëggee xam nag nu mu da ngay dem rek ci waaw tëgg bi nga xam ne mooy xelli wurus ak xaalis nga laaj ko ne ko benn gramme nu muy toll suñ xaalis bi CFA nu mu la wax noonu lay toll rek minti multiplier loolu ba muy cinq cent quatre-vingt-quinze soo ko multiplier ba muy cinq cent quatre vingt daal lu mu la jox looloo di nisaabu xaalis noonu da nga koy seetee benn gramme bu nekk laajteel nu mu toll buñ ne la gramme bi nangam lay toll ci xaalis CFA maanaam si misaal buñ ne la deux cent lay toll jëlal deux cent nga multiplier ko ba muy cinq cent quatre boo ko multiplié ba mu cinq cent quatre-vingt-quinze rek waaw lam la jox looloo yi nisaawu xaalis at moomu <clears throat> yeneen yi muy jàngale yëpp nag ñoom seen jamono la xoon foofu ci misra amaana amul ñu njëriñ waaye ñu jaar si rek ndem ka ko doon bind sonn na ci te muy xam-xam mu ne aw yusrafu wala boog danañ turne dañ wéccé kullu ashrin wala bok aw min aw min ma wala ci ñom ñaar dé manam nisab danay amé ci wurus ak xaalis yëpp nga boole len génnee asaka niki nga am fukki dinar lolu genn walu nisab la ak téméri dërëm ko it genn walu nisab la so len boolee kay am nga genn walu ci wurus am genn walu ci xaalis kon am nga nisab bu mat sëkk na nga génnee asaka wala nga am fukki dinaar ak juróom loolu ñetti xaaju nisaab la maanaam boo xaajee nisaab ñetti xaaj ñetti xaaj yi mooy fukki dinaar ak juróom ci wurus teg si juróom fukki dërëm kooku boo xaajee nisaab ñeenti xaaj benn xaaj bala benn xaaj boobu nag boo ko boole ñetti xaaj yi dafay man nisaab bu mat sëkk kon ko am fukki dinaar ak juróom ak juróom fukki dërëm asaka war na ci rek laa wax de yusrafu danañ weccee kullu usrin fukk yu nekk min ha ci nisaab yooyu wala boog ci dërëm yooyu bi dinaarin ci dinaar dërëm bu nekk rek dégg nga fukki dërëm yu nekk rek dafay tombeek benn dinaar ndax lan ndax benn dinaar ba muy fukk mooy nisaabu wurus fukki dërëm ba muy fukki it mooy nisaabu xaalis ñaar téeméer kon kay benn dinaar bu nekk moo fukki dërëm ñoo tolloo ci weccee waaw loolu daal moo ñu ci solo yeneen yëpp nag dégg nga loolu benn borom xam-xam bu ñuy wax az-Zahabi moo doon segg xaalis yooyu amoon misra nuy seen nisaab ak nuñ toll moom lay wax ne ahlu asri ñooñ jamono xat xararoo segg nañ madruba kulli zahabin luñ seggi bépp wurus wala luñ wéyeli bépp wurus bi misrina si si misra gi kal bunduqi ni ki bunduqi wal maghribi ak maghribi nee na eh, kooku ñu doon wax xariri eh, zahabi mu doon segg xaalisu bunduqi foofu ci misra ak xaalisu xariri pour xam duñ toll ci maa ngi wax sa xariri maghribi pour xam duñ toll ci waaw nisaabu foofu mu ne suuna ñaar fukk maa salaasatin ànd ak ñett wanis fi genn wàll wanis fu subu ansrin ak genn wàllu juróom ñaareelu fukkeel loolu lay toll ci dégg maghribi de dégg nga bu fekkee ci bundu la moom ñaar fukki ñaar fukk ak juróom lay doon ak genn wàll dégg nga boo ko seggee xaalis boobu dana toll vingt cinq bundu xii ak genn wàll pour nga war a génnee asaka bu dee ci maxri bi nag moom la lam bind noonu ci yax bi moom la mujj tudd moom moom lam bind ca yax ba mooy maghribi moom vingt trois la gen vingt trois maghribi ak genn wàllu maghribi ak genn wàllu juróom-ñaareelu fukkeel maanaam boo xaajee ma boo amee vingt trois maghribi ak genn wàllu maghribi nga jëlaat benn maghribi xaaj ko fukki xaaj jël benn xaaj ba xaaj ko juróom-ñaari xaaj jël benn xaaj ba xaaj ko ci digg wa loolu mooy genn wàllu juróom-ñaareelu fukkeel kon moom ba seggee bunduqi foofu ca misra boo amee ñaar fukki bunduqi ak juróom ak genn wàll am nga nisaab boo seggee maxribi boo amee vingt trois maxribi ak genn wàll ak genn wàllu juróom-ñaareelu fukkeel am nga nisaab genn wàllu juróom-ñaareelu fukkeel nag mooy nga jël maxribi bi xaaj ko fukki xaaj jël benn xaaj ba xaaj ko juróom-ñaari xaaj benn xaaj ba nga xaaj ko ci digg ba loolu genn wàllu juróom-ñaareelu fukkeel de zaal yi doy na aw sinfin war ma tudd beneen xeet ci xeet asaka yi waa kon ñu saraa loolu mu ne su man taqalto mu taxalu yettakala mu di wax ala zakatin ayni ci zakay kin fa qaala mu ne insuuna dinaaran ñaar fukki dinaar yuridu lam nam mooy ana nisaaba dahabi naka nisaabu wurus insuuna ñaar fukki dinaaran ci dinaar sariyan bi ko ju sharia dinaaru sariya boo ci amee ñaar fukk rek a azakaay wurus war na la wax naa la ne benn dinaar mooy tolloog 4 mm, mm, grammes ak rubon gramme ñeenti gramme ak quart loolu nag quatre boo ko multiplier ba muy dégg nga ñaar fukk dafay nekk quatre-vingt bu ko defee yenn kaar yi nga multiplier ko ba muy ñaar fukk loolu dafay nekk cinq muy quatre-vingt-cinq grammes kaar mooy lan mooy nga xaaj ko ñeenti xaaj jël benn xaaj ba ñaar fukk juróomi kaat moo fa nekk kon kaat yu nekk nga jël benn ba ba muy ñaar bu dee ñaar fukk kaat yu nekk jël nga benn ba kon jël nga fa juróom wàññi nga fa juróom moo tax quatre-vingt-cinq moo di nisaab ci wurus ku ko am rek asaka war na la ca ndax benn gra gramme dafay tollu kaat benn dinaar dafay tollu kaat gramme ak ak kaaru garaam mooy ñeenti garaam ak robon loolu boo ko defee ba muy ñaar fukk mu nekk quatre-vingt-cinq grammes kon boo amee loolu ci ay grammes ci wurus rek génneel asaka loolu moo ñu intéressé ci darsu bi ñun mu ne wasnu dinaar yi peese dinaar mi naa ci moom isnaari ñaar la wasa mun a juróom-ñaar fukk xabatan ci pepp rek min mu ta wat si sha'iri si saañi guddi gudoomu rek laa wax de mu ñoom dañ doon misaal dañ doon peese seen dinaar rek seen xaalis yi ci peppam saaño bu diggu doomu gi nga xam ne ni tooyut bopp boppu bopp dégg nga peppam saaño boobu nag boo ci amee soixante douze pep teg benn dinaar fële ñooy xemoo benn poids moo tax mu ne poids dinaar bi mooy soixante douze pepp rek laa wax de waa loolu nag lu muy jëriñ ndax boo xamee poids dinaar bi soo amee dinaar boo xam ne motul poids boobu da ngay xam ne dinaar boobu poids bi manqué na ndax te dinaar bu poids bi manqué léeg-léegi asaka ji soppeeku léeg-léegi mu ñàkk soppeeku comme nu mu nar a ñëwee ci kanam fasa balaxa nem jot naa dinaari dinaari haadal miqdaara bi la doyoo wajabar war na fiyaa ci moom asakaatu asaka yee asaka de dinaari daal bu demee ba mat waaw ñaar fukki dinaar mu tolloo quatre-vingt-cinq grammes su boobaa asaka war na ca wata jibu dana war aydan ba tey lima zaara ci la ëpp naaran aussi ci fukkeel ba dégg nga dinaaran moo xam benn dinaar la wala xalla di leen néew na wala boog alaa ishirin dinaaran fi ma zaara ci la ëpp na alaa ishirin dinaaran ci ñaar fukki dinaar wala xalla di leen néew na de xaalis amul law xaas mbay amul law xaas moo tax mooy li àndoon ndax li am ba am laa wax sa di rek law xaas fi laay ni ci kañ mooy wur sa xaalis kalaxar si ni ki mbay xaalis amul law xaas mbay amul law xaas kaye kaye kaye kaye mooy wurus ak xaalis ñoom ñaar ñëpp amuñ law xaas soo amoon ñaar fukki dinaar ak genn wàllu dinaar sax genn wàllu googu da ko kalkinaale génn ko asaka maanaam da koy xaaj rek dégg nga fukki xaaj benn xaaj bi nga xaaj ko ñeenti xaaj benn ba nga génne asaka de kon boo amee nisaab ci xaalis lu ci tegu lum tuuti tuuti kalkinaaneel dafa war a génn ci asaka ji loolay mbir ma naka noonu soo amee soo mbayee bayee am nisaab jàngale woon nañu asakaay mbay moom yaakaar naa la ca tegu lum tuuti tuuti rek génne la asaka de wa sawaawun aji yemoo la fi dalika ci dinaar yooyu almaskukatu bañ segg ba wa xeyre ak budu buñ segg ba kani xaari dahabi ni ku tojitu wurus wa tibri ak wurus buñ génnee suuf defaraguñ ko yooyu xam nga defaraguñ ko yooyu seggeeguñ ko yuñ seggi mooy yi nga xam ne defar nañ ko tampo ak i rëdd yuñ ko xamee maanaam def ci ay rëdd sikkatu mooy rëdd rek maskuuka mooy ñu defal ay rëdd rek bu fekkee gouvernement bi nguur gi defal na ko ay rëdd bañ koy jëflante ci e, e, réew mi nga xam ne ni ñëpp xam nañ weccitu dinaar bi nu mu war a toll dégg nga boobaa dañ danañ ko génne asaka loolu moom leer na bi nga xam ne tojitu wurus rek la wurus tojitu wurus nii rek dégg nga wala boog urus guñ génnee suuf it seggee guñ ko ba di ko jëflante su boobaa dañ ci génne asaka laa wax wayoon tabaru danañ xalam fi dinaaniri ci dinaari almaskuuka bii de almasbuuka yiñ segg yi haadal adad de dinaar bi nga xam ne nii waaw segg nañ ko defar ko foo mu mat ñaar fukki dinaar pour ñu génne ko asaka walaw kaana dina nekk na maxsuusatan di luñ jaxase bi baadi nuxaasi ci yenn ci pëdëm bi ngay génne asaka nag mooy dinaar bu baax boo xoolee ba gis ne dinaar daal mat na nisaab nga génne da war nga koo génne asaka de dile dafa jaxasoog pëdëm ndax léeg-léeg am loo xam ne dinaar la wurus la am lu ci yokku loo xam ne loolu moom pëdëm la dañ ko ci yokku di ko jëflante su loolu amee dégg nga te pëdëm googu waaw teewut a jar dinaar boobu lay marmami jar rek lay jar su boobaa yi da koy génn naa saka de moo tax mu ne aw naqisatan wala muy aji wàññeeku fil wasni ci poids naqisan ak wàññeeku bu dee dinaar boobu lépp dinaar kese la waaye poids bi kat waaw matul poids ab dinaar bu mat sëkk ndax poids ab dinaar dafay peese soixante douze pepp si peppam saaño bii moom manqué na benn pepp wala ñaari pepp kon soixante onze pepp la wala soixante dix bu manqué it danañ ko génne asaka rek laa wax de ndem na am nga ci lu toolu ñaar fukki dinaar waaye si sartaab ñaar yëpp moo mooy bu rax pëdëm bi ak bu manqué bi si sartaab in raaja ndem jar na fi taamuri si jëflante bi ci moom karawaaje kaamila comme jarak aji mat alxaalisa bi aji sell mi ne waaw ci ak rax de su fekkee yooyu jar nañ ñi leen ñoom di jaay di jënd comme dinaar mm, bu mat bi bi nga xam ne amul lenn luñ ci rax dégg nga wala poam bi mat na dégg nga suñ jëree comme boobu rek danañ danañ ci génne asaka laa wax dégg nga fay lam taruj ndem jarut bi an naqasa ci mu wàññeeku mooy mu wàññeeku sarfuwa ak weccitam an tarfil kaamila ci weccitu bu mat bi awil xaalisa wala bu sell bi maanaam su fekkee dinaar bi nga xam ne ni waa dafa rax soo ko weccee koo du tolloog bi nga xam ne dafa mat bu mat moo yëpp weccet woowu moo yëpp wala du dinaar bi nga xam ne poids bi dafa wàññeeku soo ko weccee koo dégg nga bi poids bi mat moo koy yëpp xam nga ne kon du mën a jar comme nu bëri de dégg nga moom lay wax bi an naqasa mooy wàññeeku sarfa weccitamam sarful kaamila si weccitak bu mat bi awil xaalisa wala bu sell ba kammala na mottali an naqasa la wàññeeku fi naaqisa saaji wàññeeku ba waxsa ba mu konte al xaalisa la aji sell min al maxsuusati ca la nga xam ne ni moom lañ moom lañ jarde su boobaa bi manqué rek bu manqué poids naka mottali ba ba poids yi man rek day xool rek li ci manqué ci poids dana ko misaal nu mu war a toll ci ay dinaar rek mu mottali ci loolu génne ko asaka bu dee bi nga xam ni dañ cee rax dara day xool rek lañ ca rax du ko kontaare dinaar yi kese lay xool nu mu war a toll dégg nga bu matee mu yokk ci la nga xam ne nii waaw war na cee manqué mu génne azaka misaal wol misaal bu ñaareel bi mooy bu manqué poids bi manqué muy zaakaana bu nekkee wasnu naqisa peese ba aji wàññeeku ba laaye fii du mat bi dinaa ni sharia ci dërëmu sharia yi waaw ziida dañu yokk aliyaa ci moom maa yi ku mira lu ko motali dinaar moo xam benn dinaar la aw dinaar yi ni wala ñaari dinaar de loolu noo koy xamee da jël rek dina sa ñaar fukki dinaar yi xam nga benn dinaar bu nekk soixante douze waaw pepp lay peese soixante douze nag boo ko multiplier ba muy vingt lam lay jox loolu lay ñaar fukki dinaari di peese yow léegi da ngay jël dinaar yi nga xam rek yi nga xam ni poids bi dafa sotti ko fa ci benn ci benn ci benn poids dégg nga teg pepp yi nga xam ni moo war a tolloog ñaar fukki dinaar su manqué lu toll soixante douze pepp bu dee pepp yaa ko gën a diis la mu ko gën a diisee soixante douze pepp rek moo ci manqué su boobaa nga xam ne xam ne benn dinaar la manqué yow kon ñaar fukki dinaar ak benn ngay génne asaka su fekkee ñaari ñaari soixante douze la dégg nga nga xam ne ñaari dinaar la manqué noonu la nga koy toppee xam ngeen ko rek. soixante douze mooy peese benn dinaar jëlal soixante douze yi nga multiplier ko ba muy vingt loolee peese ñaar fukki dinaar yëpp nga jël pepp yooyu nag teg foofu jël ñaar fukki dinaar yi nga am te poids yi manqué teg foofu su boobaa da nga xam dégg nga ñaata poids moo ñaata dinaar moo war a manqué dégg nga su dee soixante douze pepp rek moo manqué moo tee ñu tolloo boo tegee ci dinaar yi yeneen soixante douze pepp sax moo gëlee mook mook pepp yi nga xam ne mooy tolloog lii mu dinaar yëpp dañuy tolloo nga xam ne yow benn dinaar la manqué nga yokk ci benn dinaar ñaar fukki dinaar ak benn noonu nga koy toppee rek ba mu jeex de o misaalu saani misaalu ñaareel ba isa bu nekkee fi dinaar niiri ci dinaar yi almaxsuusat yañ njar xadar rubin comme kaar mine nuhaasi ci pëdam masalan ci misaal fi kulli dinaarin ci bépp dinaar xasaba dana calculer alxaalis la sell minaa ci moom bu fekkee dinaar yi nga xam ne dafa dañoo dañoo am luñ ci rax te bokkut ci lañ ci rax doo ko compter lay dinaar piir rek ngay compter si misaal bu doon dinaar bu nekk boo ko xaajee ñeenti xaaj benn xaaj ba dégg nga benn xaaj ba pëdëm la kon yow boo ci amee ñaar fukk génneel kaar ya maanaam ñaar fukk yooyu xoolal ñett yu nekk rek nga ne lii mooy dinaar. ñeenteel bi moom du xaalis du dara léegi nag bu dee ñeent yu nekk benn ba pëdëm la ñett yi rek ñooy dinaar yow su boobaa boo amee ñaar fukki dinaar na nga xam ne ñaar fukki yooyu ñeent yu nekk génn nga ci benn kon génn nga ci juróom ndax ñaar fukki juróom yi ñeent moo fa nekk bu dee ñeent yu nekk génn nga fa ab xaaj kon génn nga fa juróom su dee ñett yi ñeent ñeent yu nekk ñettee ñooy dinaar kon yow fukki dinaar ak juróom nga xam su boobaa man am nga ñaar fukki dinaar gaa waaye nag dinaar yi ñeent yu nekk benn barax na benn bu nekk boo xaayee ñeent xaaj benn xaaju pëdëm la kon yow dëgg-dëgg fukki dinaar ak juróom nga am kon dang ci teg yeneen juróomi dinaar muy ñaar fukki dinaar ak juróom pour asaka war la maanaam foofu la mu bëgg wax mooy bul compter dinaar yi nga xam ne li nga xam ne dafa rax ci dinaar yi bokkut dinaar bi daal bu dee dinaar bu nekk boo ko xaajee ñeenti xaaj benn xaaj ba la yow boo amee ñaar fukk xamal ne ñeent yoo jël ñett yee ñooy dinaar génneel benn ba te ñeent juróom la ci ñaar fukk dégg nga soo su dee ñeent yu nekk génn nga benn kon da nga génnee juróom su boobaa lay nekk dinaar fukk juróom la dégg nga ndax ñett yi nekk rek benn ba moy dinaar de waaw trois fois cinq mooy ñaata trois hmm? trois fois cinq quinze la hmm? su boobaa cinq yu nekk rek euh, euh, quatre yu nekk rek trois moom mooy dinaar am nga ci ñaar fukki dinaar su ñaar fukki dinaar yooyu dégg nga boo ko xaajoon par ñeent da ngay gis ne juróomi xaaj la juróomi xaaj yooyu nag yëpp juróomi xaaj yoo jël trois ba rek trois yi rek mooy dinaar kon trois fois cinq quinze la yow quinze dinaar nga xam dégg nga juróomi xaaj yooyu bu ne ñeenti xaaj yooyu nag nga xam ne ñeent juróomi yooyu bu nekk ñeent la bu doon bu nekk jël nga ci benn su ko defee xam nga juróomi juróomi yoo xam ni ay pëdëm la dafa manqué soo waaye war nga am ñaar fukki dinaar juróom de ku ko seenante yaakaar naa da nga xam war ma idaa kaana bu nekkee fi dinaar ne si dinaar maxsuusa yeneen yax yeneen rax qadar rubayin kem kaar meen waasi ci pëdëm masalan ci misaal fii kulli ci bépp dinaar xasaba na konte alxaalis la sell minaa ci moom waaw maanaam da ngay xool yi nekk dinaar rek la ci rax moom bul ko konte boo xoolee yi nekk dinaar kay normalement war ngaa xam li ñaata dinaar la war a toll yet la ca rax moom ci pëdëm sànni ko fële asaka waru ci dégg nga dile ma ngi ci dinaar ga sax waas xata mu rotal juz an nuhaa si xaaj ak ga ilaan yaxsu loolu mooy ba mu am maa yu ko maa yu ko milu xaalu ko mottali baadal intibaari ci biir xalam bu dee ñeent yu nekk benn ba përëm la te ñaar fukk nga ci war kon ñaar fukk waaw juróomi ñeent ci nekk kon da ci génne juróom yoo xam ne ni waaw loolu moom përëm la waaw mu de fukk ak juróom yoo xam ne loolu rek mooy dinaar boo xoolee li nga yore dafa mel ni ñaar fukki dinaar la fekk fukki dinaar ak juróom la ndax boole woo ci pëdëm bi moo tax ma ne woo loolu nga xam xam suñu wayen suñu na fukk ak juróom la dinaar lañ ci dinaar de waaw kon boo amee ñaar fukk ci dinaar yu am pëdëm yi yokk si yeneen fukk yeneen juróomi dinaar yu sell muy ñaar fukki juróom nga door a génne asaka ndax loolay tollal ñaar fukki dinaar moo tax mu ne su ma du zakka ñu asakaal ko baana zaalika gannaaw loolu boo génnee pëdëm ya ba yokk ca la ko mottali nga door koo asakaal de wa kazaalika ni yuqaal lañ wax fi daraahim ci dërëm yi dërëm boo xam ne dafa raxlu ci bokkut yow compter rek li nga xam ne mooy xaalis piir li nga xam ne bokkut ci nag nga bokk foofu bul ko compter ba xaalis piir bi mat ñaar fukki dërëm yu mat eh, ñaar téeméeri dërëm yu mat sëkk waaw di cinq cent quatre-vingt-quinze grammes nga door koo génne asaka laa wax bi it dañ koy peese dana ko wax bu manqué poids bi it faw nga mottali ko rek de comme niñ ko waxoon ci dinaar moom lay wane aw miata dinamin li warqin faxsi bi warq nag wariq la waroon wax waaye wee tax mu sukkoon ko yurido dana namun anna nisaaba ne nisaab min azahabi ci wurus ishruna dinaara ñaar fukki dinaar la wa min al warqi bu dee si xaalis bi kase raay ci kasa raagi mooy moom alfidatu mori xaalis miata dinami ñaar téeméer dërëm la charin bi ka sharia wax naa ne xaalis amul problème yow daal demal ci tëgg bi nga xam ne mooy xelli wurus xaalis rek nga laaj ko benn garaam dégg nga ci xaalis piir ñaata lay toll suñ CFA bi lu la wax rek jëlal loolu nga multiplier ko cinq cent quatre-vingt-quinze boo ko multiplier ba muy cinq cent quatre quinze rek lam la jox loolu azaka ja maanaam cinq cent quatre-vingt-quinze garaam moom ngay jàpp ne mooy nisaabu xaalis piir suñ xaalis yi nag mën naa bañ a tolloo garaam yi léegi benn garaam ngay laajte ñaata la buñ ne la benn garaam temps lay toll ci xaalis CFA jëloon benn garaam ci misaal bu doon cinq cent mille firima tey bu doon benn garaam dama da ngaa ci ñu la benn garaam cinq cent lay jar léegi cinq cent ngay jël rek multiplié ko ba mu cinq cent quatre-vingt-quinze loolu lay jox dégg nga waaw mu lay jox deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent loolu la lay jox su waa nga xam ne loolu la nisaab bi ci misaal si jamono jooju noonu lañ koy xoolee dégg nga loolu yomb na dégg nga moom nag mu ne yuridu dana na mu ana nisaab ne nisaab wurus يسرون جنار فكيد فكي لا ومن الورق بريج قالس دكسر راج كسر راج وهي مال فيت مور قالس مياتا درهم من ياتي من درهم لا شرعين بك جو شرعان وطن درهم من بيجي درهم من آتي موم بين درهم نمي تلو ci dërëm خمسونا xamsuuna xabbatan juróom fukki pepp la woo xumusa xabbatin ak ñaari xumusu pepp kon dinaar bi moo gën a diis dërëm bi boo jëlee benn pepp xaaj ko juróomi xaaj jël ñaari xaaja cinquante ak ñaari xaaj yi juróomeel mu ne saa yi ba tey léegi nag dërëm bi boo ko peesee mu mat poids boobu rek baax na bu matul poids boobu it waaye mu ngi jar wecc itam mel ni dërëm bu mat ba ba léegi dañ koy génne asaka bu manqué nag nga wut dërëm lu ko mottali ba bu mat rek laa wax de amaa ñun li ñu yore ñaareel. am na ci loo xam ne furus la furus moom weccel la mooy yi ñuy jël rek defar ko di ko jëflante mu mel ni xaalis loolu moom dañ ciy génne asaka ci lu amul benn sikk waaye bu dee dërëm piir lañ rax leneen loolu ñuy rax moom doo ko compter ñaari bokkuñ fulus bi la ñuy jëflante ñun yoruñ dërëm yoruñ xaalis ci misaal fulus bi la ñuy jëflante loolu dañ koy génne asaka waaye bu fekkee da nga jël dinaar bi rax ci loo xam ni du wurus wala nga jël dërëm bi rax ci loo xam ni du wurus loolu nga ci rax doo ko kontaale de da ngay compter xaalis bi piir dinaar yi piir ba mën nga génne ko asaka waaye moom ay daraayimu sharia dërëmu sharia asgaru moo gën a ndaw mais daraayimu misra ci dërëmu misra dërëmu sharia nga xam ni daal nisaab ba mooy cinq cent quatre-vingt-quinze grammes dërëmu sharia boobu moo gën a ndaw dërëmu misra moom nag misra la nekk moo tax mu di ko fa misaal is ngir a nisaabu nisaab minaa si demu misra miatun téeméer la waaw wa xamsun ak juróom wa samaanun ak juróom ñett fukk diraaman ci dërëm boobu kay moo gëpp fuuf dégg nga wa nisfu diraaman ak wa tumuni dërëmin ak juróom ñetteelu xaaju dërëm nisaab ci dërëmu sariya ñaar téeméer la amaa ci dërëmu misra matut ñaar téeméer dégg nga téeméer yi dërëm lay doon ak juróom-ñett fukk ak juróom dégg nga ak genn wàllu dërëm ak su munul dërëm mooy nga xaaj benn dërëm juróom-ñetteel xaaj génn benn ba kon maanaam beref ko ëpp moo tax dërëmu misra moo tax moom du yegg ñaar du yegg ñaar téeméer. dërëmu sharia bi nag moo gën a ndaw moom mooy egg ñaar téeméer léegi boo amee lii ci dërëmu misra rek am nga yow ñaar téeméer dërëm kon dërëmu misra moo ëpp de wa ma zaada la yokk naa la zalika ci nisaab fa bi hisaab yi nga kalkinaal ko rek de wa xawlo waxam faxsib kalkineel min xasaba bi firi konte na dégg nga bi maana adda konte na takmilatan da ko rek lil bayti ñeel bayti bi may waywi aw minhuma wala suñoom ñaar ay wa aw xasil na nga amal annisaaba nisaab minhuma suñoom ñaar ay azahabu wurus wal firda xaalis kaasara dinaar ya nekk fukki dinaar ba miyaati diraam ak téeméeri diram aw xamsata asara dinaaran wala fukki dinaar ak juróom wa xamsina diraman ak juróom fukki diram wurus ak xaalis waaw danañ leen boole génne asaka maanaam bu amoon fukki dinaar ak téeméeri dërëm am nga ci bii gën wàll nisaab am ci bee gën wàll nisaab asaka war na ci aw xamsata asala dinaaran wala nga am fukki dinaar ak juróom wa xamsina diraaman juróom fukki dërëm su boobaa am nga si bii waaw ñetteelu xaaju nisaab am ca bee ñeenteelu xaaju nisaab soo leen boolee kay dafay man nisaab nga génn zaasa xam nga nu mu wax dégg nga yusrafu danañ weccee kullu asratin bépp fukk minaa ci bi dinaarin ci dinaar fukk yi nekk rek dafay tolloog dinaar ndax lan ndax benn dinaar ba muy ba muy ba ñaar fukki yoon looloo di nisaab waaw fukki dërëm ba muy ñaar fukki yoon mooy tollook ñaar téeméer kon fukki dërëm yu nekk rek dafa tolloog benn dinaar ay lu mes na ma noonu li am baam yoon taboo danañ xalam sarfu dinaar yi <clears throat> dinaar mina ci dinaar bi yi daraahim ci fukki dërëm sariyan bi ko jug sariya de dërëm bu nekk rek fukki dërëm yu nekk rek dafay tolloog benn dinaar ndax benn dinaar boo ko multiplier ba muy vingt mooy nisaabu wurus waaye benn dërëm boo ko multiplier ba muy vingt mooy ni mooy ñaar téeméer di nisaabu xaalis kon fukki dërëm yu nekk moog benn dinaar ñoo tolloog poids de <coughs> loolu bi nisbati li zakat boo xoolee ci wàllum azakala kal jiseeti ni ki galak dégg nga loolu sarfu moo di moo di wecc tam de maanaam fukki dërëm yu nekk rek ci wàllu garak ak asaka <laughs> mooy tolloog waaw benn dinaar dégg waa ma bi nisbati li zakati waaye bu dee ci asaka la li nikaayi bu dee ci sëy la bu xool ci mbiram sëy wa sariqati ak sàcc fees naa asra dinaaran ñaar fukki dinaar ak ñaar dégg nga loolu mooy weccitu benn dërëm de kuy takk soxna bu dee lim koy canee la ci gën a néew ci wurus mooy kaaru dinaar boo xaajee dinaar ñeenti xaaj benn xaaj ba mooy can mooy la gën a néew ci can la gën a néew ci can nag ci dërëm mooy ñetti dërëm dégg nga su boo xoolee ci calcul boobu da ngay gis ne fukki dërëm ak ñaar mooy tolloog genn wàllu dinaar mooy tollook benn dinaar ndax lan ndax benn dinaar bi da nga koo ñeenti xaaj benn xaaj bi mooy mooy can ku ko sàcc loolu la dagg jëlal fukk ñaar nga xaaj ko ñeenti xaaj benn xaaj bi mooy tollook ñetti dërëm bu dee ñetti dërëm moo tolloog kaaru dinaar ñeenteelu xaaju dinaar kon fukk ñaar mooy tolloog jëmmi dinaar amun mo benn dinaar ma waxaat ko tuuti rek boo ko xaajee ñeenti xaaj benn xaaj ba moo gën a tuuti ci la ñuy joxe ci can ku sàcc lu toll noonu dañ dagg sa loxo ñi fukki dërëm ak ñaar boo ko xaajee ñeenti xaaj benn xaaj ba ñetti dërëm lay tolloog loolu moo gën a tuuti ci li ñuy joxe ci can ci wàllu dërëm te ku sàcc du toll noonu ñu dagg sa loxo kon jëmmi dinaar bi moom lu mu war a tolloog ci ay dërëm fukki dërëm ak ñaar jëmmi dinaar fukki dërëm ak ñaar la war a tolloog ndax jëmmi dinaar bi boo ko xaajee ñeenti xaaj benn xaaj ba kaar lay doon mooy tollo fukki dërëm ak nga xaaj ko ñeent xaaj benn xaaj bi ñetti dërëm ñetti dërëm ma kaar ñoo tolloo ku ko sàcc ñu dagg sa loxo kuy ci takk soxna lu mu néew néew nga jox ko toll na loolu nag boo ko bëggee xam ci jamono ji nisaa euh, lañ war a jox jigéen ji demal rek nga laajte ko ci ay garaam num mu war a toll maanaam benn garaam ngay laajte nu mu war a toll suñ xaalis CFA bi su ko defee nga calcul ko ci calcul bi ma la waxoon rek dana laaj calcul nag mais soo ko calculé rek danga nga xam ñaata la war a toll dégg nga waa ma waraqul bankanut waaye kayitu bankanut mooy kayit yi nga xam ne du xaalis waaye nguur gaa ngi koy génn rek di ko ñu di ko jëflante mu ne fala tëj bul war fii ci moom azakaatu azaka wayen balaxa dina jot na nisaaban nisaab lianoo ndax moom mi leen xoolal mu ngi bokk si marchandise kayit yi nga xam ne lañ koy jëflante kayit yi dix mille yeeg cinq mille yeeg cent kayit yooyu xam nga yooyu du xaalis xaalis mbenn la suuf lay jugee nee na kayit yooyu marchandise la azaka waru ci de wa zakaatu azaka xaasatuma ji jagoo la bilaay ni ci kañ de asaka ci wurus ak xaalis rek lañ koy génne loolu di kañ waaye kayit yooyu kenn du ko ci génne laa dégg nga kama fi fatawa cheikh Oulays comme ni mu ñëwee si fatwa cheikh Oulays dégg nga ah, na waar xaalis yi kayit yi ñun moom lañ am bis boo ko génnewoon boo ko génnewoon ci li ñu war a génne rek benn borom alal dootu joxati azaka ndax borom alal yëpp xaalis lañuy denc ba déwén kayit ay weccet koo si mos a gis ko am ay weccet yu man nisaab denc ko ba ren ba déwén banque boo demee bu ñuy génne kayit rek la ñuy génne kayit yooyu bis boo dàqee am rek mooy nar ngaa génne azaka ci réew mi te azaka nag li ko taxoon a jug mooy jël ko ci way xoomal yi ko way ñàkk yi su fekkee looloo ko tax a jóg way xoomal yi dañuy jëflante ci wàll alal rek loolu la ñuy génne joxe asaka yàlla daal daf ne xuz min amwaalihim sadaqatan jëlal seen alal sarax xaral la wax waxut xuz min al ayni waaw aw min al zahabi wala min al fiddati xuz min amwaalihim jëlal seen alal saraxe te moo di asaka waaw kon alal daal dañ cee war a génne asaka rek ndem li moo wecci wurus xaalis rek mooy kayit yi te dem na ba nga xam ne boo ko fi dàqeet kenn dootu génneeti asaka su boobaa dégg nga ba ko fi rek mooy gën a xóor waaye nag suñ demoon ba nga xam ne nit ñi xaalis bi dañuy gën a jëfandikoo nga xam ne ni xaal kayit ga boo ko génne wuri du lor miskin ya su boobaa mën ngaa nangu atem bi dégg nga waaw maa fi taamuli waaye jëflante bi ci moom benn naas diggante si nit ñi wa fi tijaarati ak ci commerce fay noonu nag moom bi manzilati ayni mu ngi ci wàccu waay kañ de nee na kayit yooyu bu dee dañuy jëflante ci diggante nit ñi ak ci commerce ah, kayit yooyu moo wurus ak xaalis benn lañ maanaam riba dañ ko ciy bañ duñ nangu mukk nga joxe 1000 francs ci kayit ñu jox la 1200 duñ ko nangu waaw moo xaalis rek ñoo yem lañuy bañ ci xaalis dañ koy bañ moo tax moo tax mu ne wali zaali moo tax yakun dana nekk fii ci moom riba riba fi taamuli ci jëflante ma daama fek sax na alaa yi jënd aji jar kama fi samaan na comme suñ jamono haasa bi fek kër yooyu ngi jar rek jëflante ci day am riba bu demee ba jaratul nag comme kayit yi nga xam ni foole nañ ko ba joxoon ñu jox la leneen nit dara nekkut ci parce que loolu doon tut xaalis waaye nag jàpp ne asaka war na ci rek xëy na moo gën a woor dégg nga même it takk soxna gële ña ngi doon wax rek ne li gën a néew ci can li ñuy yàgg dégg ci téere yi loolu la ñetti dërëm la ñetti dërëm waaye daal yaakaar naa ne ku xool benn garaam nu mu war a toll ci xaalis nga multiplier ko cinq cent quatre-vingt-quinze da nga war a xam da xam nisaabu xaalis nu mu toll soo xoolee calcul boobu da xam mille francs yi nu mu toll ci ay gram booba war ngaa xam ñetti dërëm mi nu mu war a nu mu war a toll ci xaalis boo xamee mille francs yi nu mu toll rek da nga xam ñetti dërëm yu nekk nu mu war a toll ci ñaata gram la war a tolloo <coughs> mille francs tey war nga xam ñett dërëm yi nekk ñaata gram la la tolloo su boobaa da nga jël ñetti dërëm multiplier ko par gramme yooyu loolu mooy nisaabu xaalis te boo xamoon ñett dërëm ñaata gramme la toll rek amatoo problème tey 1000 francs xam nañ ne 595 grammes lay toll kon benn gramme la ñuy jël xam nu mu toll si xaalis jël xaalis ba multiplier ko ba 595 léegi mil francs yooyu ñett dërëm yu nekk war ngaa xool boo ko laajtee mu dana xam ñaata gramme lay tolloog. dégg nga su ko defee boo amee ñetti dërëm da nga multiplier ci gram yooyu loolu mooy nisaabu fay waaye nag muy si ñetti dërëm yi tuuti yi nga xam ne moom dara ànd ak nag loolu Malick moom moo ko wax ne li gën a ci can lii la waaye ñeneen borom xam-xam yi li gën a ci can laa xadda indahum amul doyoo lu waxtaan ba juboo ci rek bu mu nekk lu lor ndaw si bal bàyyil huwa moom kayit yooyu fi taamul si jëflante bii ci nit ñi asraf moo gën a tedd mi ne ay ni ci kaye wa xusuusan rawatina inda tujaari ci commerçant yi maanaam kayit yooyu moo gën a tedd sax rawatina ci commerçant yi kon moom jamono ji muy wax moom xooroon na ko ne kayit yooyu moo ëpp valeur ba pare mu ne duñ ko génne asaka xanaa dafa bëgg a miskin yi duñu am dara ànd ak ne borom xam-xam la nag ñu ngi koy xormaal waaye kayit yooyu dañ ko war a génne asaka hadis ñoo na yonentu ne mën a taaw laaw maalan ku yàlla jox alal falam yu addi zakaatu joxe wut azaka ja kon alal rek la wax da ngaa war a joxe azaka mutira law sujaan aqra law zabibataani su yaxuzu bi lahzamayi suma yaqulu ana maaluka ana kanzuka waaw ku am alal génne wut ci azaka rek yàlla def ko muy jaani ñàngoor waaw joo xam ne ne amul sax karaw ndax bëri tooke waaw am ay fuurit yu génn ci gémmiñ nga wala ñaari tupp yu ñuul ci tomb ca bëri ya bu ko defee nag muy jàpp ca mu ñëw rek euh, laxasu ko ca doq ga loolu waxaale na ko bu ko defee jàpp sa ñaari nga yi borom xalal ja naan ko maa sa xalal ji nga ba a génn de maa la nga denc de kon xalal gi kay dañ ko war a joxe ci yoonu yàlla dégg nga te nag hadis boobu kat ay alquran lay firi te ay alquran yi xam nga lu mu waxan dégg nga euh, wala yaxsabanna alladina yabxaluuna بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة lañ nay dañ leen ko takkal kon loolu ñu ne loo alal jooju ñu nay bañ a joxe yonent moo ko firi ne alal la joo xam ne azaka daf cee war te maal moom kayit yi dugal na ci biir moo tax jàpp naa ne génne ko daal moom moo war wala alam bu ko kenn dégg nag commencé ko yee li ci des nag moom nisaab la ci waa misra mu leen waalu asri ñooñ jamono ay ahadu ulamaay ahlu asri ñenn ci borom xam-xam jamono yurid na nam al alaamatu zahabi rahimahullahu taala yàlla ko yàlla yërëm mu ne xawloo waxum xaqat xararu segg nañ maanaam takk nañ madruba kulli zahabi nuñ segg bépp wurus ilax ba mu jeex yurid dafa na mu andoone moom xalxarara segg na kula madrubin lépp luñ seggi ay kula maskukin lépp luñ defal rëdd seggi moo ñu def ko tampo def ci rëdd ba commencé koo jëflante mene zahabi ci wurus maanaam wurus yi ñuy jëflante ci jamono jooju imam zahabi eh, xamoon na takkoon na ko ba xam lu nekk ñaata moo ci war a génne ñaata moo war ci azaka wal muraad lañ nama bi taxriir ci taxriir adapte mooy takk ko ba xam lu ci war ci asaka de wal muraad ci luñ segg maa mooy la nga xam ne ba dóor naa li si asraatinu buuy sikkatan ay yoon maanaam ay rëdd ay tariqan ay yoon fi taamuli ci jëflante bi awsaanin ci ay poids maxsuus yu ñu jagleel mina zahabi ci wurus aw firatin wala xaalis bi sarfin ci weccet maalumati buñ xam indil amati ci mbooloom nit ñi wal xaasati ak waaw ña rek daa wax de ya dégg nga am na ay dégg nga yoon maanaam defar nañ ko moom baax daal mu am ñu ñu koy jëflante nga xam ne ni nit ñi ñëpp am yi mbooloom ni ñeeg ñenn ñi xam nañ ko nit ñeeg ñu jagoo ñi ñëpp xam nañ ko nga xam ne laa yeen baxi du yell alhamdu lu jéng anu wërës ku rek comme si misaal mille francs yi moom ku xam na ne la foo ko tàllal xam nañ ko wurus gi it buñ ko defaree ba mu noonu wala xaalis bi ñu def ko ba mu noonu loolu mooy luñ segg wa xawla waxam bi misri naa suñ misra gi yurid dafa namu bi ci mal xaayira xaayira waaye moom xaayira laa tax taaju soxlawut li ziyaadati taarifin ñu yokk ko ak xamle lu soxla yaa ngir si woom wa kaana nekkoon almuhariru li sika ki ñeel waaw euh, segg euh, almuhallil kaa ji takk li sika ki ñeel xaalis yi nga xam ne defal nañ ko rëdd almawjuda yaa nga xam bihaa ci misra isdaaka si jamono boobu alan la mota zahabi ak genn wàllu jëniye wa rubaan ak kaaru jëniye wa sumunan ak ak ak ceeru jëniye wa nisaabu nisaab bil jëniye afran ji si jëniyu afran ji isna mooy fukki jëniye ak ñaar wa sumunan ak juróom-ñetteelu xaaju jëniye kon maanaam waaw bu dee ci jëniye la waaw foo nga am fukki jëniye ak benn yoo xam ne yu ko jëniye misra la ak genn wàllu jëniye ak kaaru jëniye ak ak juróom-ñetteelu xaaju jëniye kaar mooy nga xaaj ko ñeenti xaaj benn xaaj ba bu dee ci jëniyu la foo nga am fukki jëniye ak ñaar ak juróom-ñetteelu xaaju jënee wa taamul jëf ak jëflante raan léegi bi jëni misri si jëni misri wal jëni afranji ak jëni afranji de mu ne jamono bii nag jëni misri boobu ak afranji bi boobu rek la ñuy jëflante faqat dong doona xeera wari si dul yooyu maayati ci liy dikk waa kon bu dee si jëni moom takk na ko noonu la fukki jëni ak benn si bu dee jëni misri fukki jëni ak la ak genn wàll jën yi ak kaar ak juróom-ñetteelu xaaj jën yi bu dee ci jën yi ak ñaar la ak juróom-ñetteelu xaaj jën yi waaw te ñoom ne moom nee na loolu la ñu jëflante rek doona xëy daa wari ci yooyu bi maa yete ci lii dikk mu mel ne majid yi bu dee ci majid yi nag xaalisu majid yi ci jamono jooju salaatul salaatul asra waru boonu ñetti waaw fukk la waaw fukk la ak ñett waaw ak kaaru majid yi dafa am fukki majidi ak ñett ak kaaru majidi de wa minal baynatu xamsatu asra xamsatu asra wa xumusaani bu dee ci baynatu waaw fukki fukk ak juróom la ci baynatu ak ak ñaari xumus xaalo wax na ko shirnu bi aral izziya waqad hadda kontene fiyaa ci moom um na durib zahab ci lañ ceegi ci wurus isna isna wayen sina umulatan bu dee ci wurus la foo nga am vingt deux umula waaw mooy mbel yuñ ceeg ba mbaax faraaji mu nafat ko ñu siita bu la neexee yëpp dañuy wax nii rek waaye daal duusuñ xaalis qawlo xam kan bundixi comme bundixi wal maghribi maanaam maanaam mooy anna zahabi naka zahabi xan xarara segg na annuquda weccan alis yi nga xam ne wajada fekk na ko bi misri ci misra wa dalik loolu kan bundixi ni ki bundixi wa naxi ak nuree segg na ko fa nisaabu bi nisaab nisaab ci bundixi aani lu mu ne maal bunduqi xamsatu weesuuna wa nisfun vingt cinq bunduqi la genn wàllu bunduqi wa min al maghribi bu dee ci maghribi salaasatu weesuuna wa nisfun waaw vingt trois maghribi la <laughs> ak genn wàllu maghribi wa nisfu subu asrin ak genn wàllu juróom ñaar ñaareelu waaw mm, fukkeelu dégg nga waaw maghribi comme niñ ko waxoon kama qaala comme nu mu wax wa qawla waxam jina aw sin fin wala ab xeet ay aktafi danaa doylu fi maarifati madrubi ci xam lañ ma zukira ci liñ tudd fil matni ci way wi aw azkur wala mu tudd baqidaas naa fi des ci xeer de li mu wax ni doy na rek wala mu tudd yi des ci xeet yi loolu mooy aw sinfin loolu na mu si di doy na aw sinfin wala mu tudd beneen xeet moom lay wax ne zaa ma ne lii mu tudd doy na aw sinfin wala mu tudd mu mel dañ ko wax ne ko tuddal beneen xeet mu continué nag ne wa waraqnaa suñuy kayit bil kalbi bu dee ci kalbu xaalis kalbu woo war a xinaara wala waroon dën xaalis bu dee ci kalbu la war yaal ak riyaal xisnoona ñaar fukk la ways naan ak ñaar waru bon ak kaar taali bi aji méng kon bu ci kalbu ak riyaal boo ci amee vingt deux kalbu wala ak ñeenteelu xaaj mooy benn xaaj benn kalbu wala benn riyaal nga xaaj ko ñeenti xaaj benn xaaj bi mooy ñeenteel boo amee loolu raxas ko war na ci moom samaanum juróom ñett la wa xamsun juróom-ñett fukk la kon wa xamsun ak juróom maa miyaa ànd ak téeméer maa miyaati dirami ànd ak téeméeri diram maa xamsati asmaanin ànd ak juróomi sumun yee ñoom dégg nga nee na loolu boo koy xool ci xaalis dafay toll cent quatre-vingt-cinq dërëm ak genn wàllu dërëm ak sumunu dërëm loolu lay toll cent téeméeri dërëm ak juróom-ñett fukk ak juróom ak genn wàll dërëm ak sumunu dërëm loolu mooy cent quatre vingt dërëm ak genn wàll dërëm ak sumun de téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom moom leer na sumun nag mooy nga jël benn dërëm xaaj ko juróom-ñetti xaaj boo jëlee ñeentee loolay genn wàll ga kon genn wàll dërëm la nga jëlaat benn ba loolu di sumun kon boo jëlee dërëm xaaj ko juróomi xaaj jël juróom ya kon jël nga genn wàll dërëm ya ak sumun ba moo tax lim mu bëgg wax mooy cent vingt cinq cent quatre vingt waaw dërëm lay toll ak genn wàll dërëm ak sumunu dërëm loolu na mu ci juróomi sumun yi juróomi sumun yi mooy genn wàll ak sumun de dégg nga mu ne waroon naa suñu kayit bi su ko ni raay su ko raagalee was ni ngi bi irax ba mu jeex waye mu alfilatun wari xaalis warusuma dañ ko tuddee wari xan kay ma wari xan xaalis bi ci kasir raay gi walu jéenaan ak lu jéen waaw kama ana dahaba comme ni nga xamee wurus yusuma dañ ko tuddee ans jëran wanu daaran loolu yëpp turu wurus la waqila wa qabla ijtimaa yi ñu ñuy dajale wurus wasab kii di ko ruyal defar ko ba mu baax lakk ko safara tibran tibru lay tudd waaw سيو خالص نك بالكلب تي كلب وريال ريال يعني مش لما راني صاب الفدتي راني صاب خالص بالنقودي تي واو <laughs> ويتشر المسكوكه يرين شق من الفدتي خالص وقت تاليفي هذا النظمي تي جمانو تاليف بلا واي بري تي كلب لا ولا تي ريال هسلونا ويس ناني وربون تالي يمينغ مانام 22 واو ريال ولا كلب اكار yaani irmas na mu ana zinatan maskuka peeseb lañ waaw seggi al musamma lañ tudd bi kalbi ci kalbu wal musamma lañ tuddee bi réal ci réal xaalisu kalbu ak xaalisu réal yan ca peese poids ba isdaaku si jamono boobu is naa ne weesu na réalan ñaar fukki réal la was nañ ci peese laa sarfan du weccet seen xaalis boobu boo ko doon compter ci kalbu ak réal li vingt deux réal di peese ak kaar moomit it boobu loolu la doon peese waaye waxul na ne loolu lay wecceeku nga ne ko lu muy wecceeku si xaalis mu ne wa xawloo waxam yee moom sama am noonu wa xamsun maa miati dégg nga wa nisfu diramin wa sumunu diramin dégg nga dégg nga mu ne mooy téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom ak genn wàll dërëm ak sumunu dërëm loolu waxoon na ci gannaaw ne mooy nisaabu xaalis ci dërëmu misra waxoon na ko ci kon bu dee ci wàllu xaalis jamono boobu nii lay toll boo ko weccee ko lay toll waaye nag boo ko peesee ci kalbu ak riyaal hmm, day tolloog vingt deux kalbu ak vingt deux riyaal ñoo yemoo poids dégg yurut dafa na anis ne si ne ñaar fukk ak nu mu tuddati sax ñaar waru baan ak kaar hun na ñoom a sikkatu ñooy eh, segg ñooy waaw rëdd al mutaqaddima jiitu zikra tudd ko xariban ci lu jege de waaw ci peese boo ko peesee noonu daal boo ko defaree ba peesee ko noonu lay tolloog ñaar fukki kalbu ak riyaal ak kaar ñaar fukki kalbu ak ñaar wala ñaar fukki riyaal ak ñaar ak kaar noonu lay toll zakraatu almutaqaddima baa jiitu zikraatu du ko xariban baa jiitu lay toll si sikkaak kalboog riyaal lool la bëgg wax foofu bal hiya moom miatun mooy téeméer wa xamsun ak juróom wa samaanun ak juróom ñett fukk diraaman ci dërëm wa nisfu dërëm ak genn wàll dërëm wa sumunu dërëm ak ci ak ak waaw juróom-ñetteelu xaaju dërëm de noonu lay toll ci xaalis comme nu mu ko waxoon ci gannaaw waaw kama xaala comme nu mu wax ne maa xam sa am asmaanin ànd ak juróomi sumun juróomi sumun nag xam nga ne mooy genn wàll dërëm ak sumun de ndax sumun mooy nga jël dërëm bi xaaj ko juróom-ñetti xaaj ñeenti xaaj yi kay mooy genn wàll ga kon boo jëlee juróomi xaaj yi mooy genn te benn xaaj ba mooy sumun kon boo jëlee juróomi xaaj mooy genn wàll gaag wa hada lii maanaa kalaami naazimi mooy maanaa waxu kay waykat bi de wala maa xarara bam seggee ala alamatu zahabi borom xam-xam bu ñu wax zahabi nisaabul fidati nisaabu xaalis almaskuuk bañ bana bañ segg bi misra ci misra fi taarix mutaqaddimin ci taarix bu jiitu wajada fekk na ko bi riyaal ci riyaal siina ko dégg nga sabaatu wa isriina wa nisfan waa muy juróom muy ñaar fukki si ko ak juróom ñaar ak genn wàllu wanis fu sumun waa ak juróom waa ak genn wàllu sumun nee na ba mu ko seggee ci misra ci jamono jooju ñu wax léegi ci gannaaw bu ci riyaal la moom dafay bu dee ci riyaal si ko dafay toll vingt sept riyaal ak genn wàllu riyaal ak sumunu ak genn wàllu sumun bu dee obi riyaal abi madfa bu dee ci riyaal abu madfa la nag xamsatu wa ishruna wa nisfan warubaan waaw ñaar fukki riyal ak juróom walis fan a genn wàllu riyal warubaan ak kaaru riyal wa qiraateen ak ñaaru qiraat nattukaay la foofu noonu lay toll seen xaalis boobu wa bi riyaali majidi bu dee si riyaali majidi salaasina wa sumunan fanweeri riyaal la waaw ak sumun rek laa wax de bu dee ci riyaalu majidi waaw trente riyaal ak sumun wa bi riyaali abi taaqa <laughs> bu dee ci riyaalu abi taaqa sittata wa ishrina wa sulusayni vingt riyaal la ak ñaari ceer wa minal xurus misriya bu dee ci xurus misriya da nga bëgg a xam nisaab bi ci xursu foofu ci misriya misra xamsu miatin wa tisaatu wa isriina xursan dégg nga cinq cent vingt neuf xurs la wasulu seen ak ñaari ceeru xursu ñaari ceer mooy xaaj ko ñetti xaaj jël ñaari xaaje ila axiri ma xarara ba ci mu jëglam seggi topp na xaalis ya daal bu nekk mu wax la ci nisaab bu nekk loolu ñu wax loolu la woo moom ay nisaab nisaab bil xursi misri ci xusru misri salaasun ñett lay doon wa xam suuna ak juróom fukki riyaalan ci riyaal riyaal aba riyaal ak ansartu xurusin ak fukki xursu ilaa sulusu xursin ba ñett lu may lu may ceeru xursu de waaw xursu misri moom wax na wax na e, nu mu war a toll cinq cent vingt neuf xurson ak ñaari ceer bu dee nag da nga koo natt si riyaal aba riyaal su boobaa dafay nekk cinquante trois riyaal aba ak fukki xursu ba yu manqué ñetti ceer ay lu ma nangu si ñetti ceer yooyu salaasu malimaatu mooy ñetti malima malima de wa malima ak ceru malima ñetti ceer yooyu mooy ñetti malima ak ceeru malima is al kursu benn kursu al misri bi kaju misra asaratu malimaatu mooy fukki malima lu mooy ñetti ceer yooyu lay setti benn kursu misra mooy fukki malima dégg nga kon su ko defee ñetti ceeru kursu kon dafay tolloog ñetti malima ak ceer dégg nga benn ceeru xursu kon dafay tollook ñetti malima ak ceer ndax benn xursu rek mooy tolloo fukki malima fukk nag ñetti ñett moo fa nekk ñett ak ceer ba muy ñetti yoon loolu mooy fukk dégg nga وما قدون في ذات بعد دوجي قدون في ذات دوجي خارج المسكوك إنسج أتي يا خان بيانة كنا تمام الجفلان تران لقي فريال مصري ريال مصري ما نام نيجي جفلان تلقي تخارج ريال مصري دال أبو عنسرينا بريج ريال مصري أبو عنسرينا غرسان نعرف كي خزر خزر سليدون سي بين جفلان تسي جمعنا جوجو نعرف كي خزر سليدون وريال أبو بريج ريال أبو عشر غرسين فكي خزر سليدون ونصف ريال صغير ak genn wàll riyaal bu ndaw walis fu riyaal saxiir ak wala boog walis fu riyaal saxiir te mooy genn wàll riyaal bu ndaw ba abu riyaal abu bu ndaw ba xamsatu xurusin juróomi xursu lay doon bu dee bu mag bi fukki xursu la bu ndaw bi juróomi xursu wal qitaatu saxiira dogit gu ndaw gi alati bi nga xam ne sarfa mooy wecc tam xursaani ñaari xursu la xëy dafa xëy na dafa bëgg wax nu xursu yi toll ci riyaal jamono boobu riyaalu misri abu moo war a ñaar fukki xurs si jamono jooju muy wax rial abu dégg nga kese bu nekkul misri di fukki xurs genn wàll abu bu ndaw bi mooy tolloo juróomi xurs dogit gu ndaw gi gi nga xam ne mooy wecc tam mooy tolloo ñaari xursu seen jamono jooju fayda li am njëriñ la mu sharia dërëmu sharia bi ramulati madruba ci waaw mbellit yañ seggi xursaani ñaari xursu la wa arbaatun baara ak vingt quatre baara dégg nga dërëmu sharia ci omula misriya omula mooy mbellit bu ñu defar dafay tolo ñaari xursu ak vingt quatre baara yu saawi dana tolloog zaalik loolu fi sama naa suñ jamono hasa bi si tan wa ishrina malima vingt six malima dégg albaaratu ndax benn baara rubu malima mooy kaaru madi malima benn baara mooy nga xaaj malima ñeenti xaaj benn ba benn xaaj ba mooy tolloog benn baara dégg inta jeex na min dalil saalik si dalil saalik xaala wana mu alifu ka taalif muhammad bu muhammad saadu min ulama azhar bokk ci borom xam-xam azhar asharif yu tedd ne qad zafirtu gañe naa bi dinaari sariin ci dinaaru sarian madrubun buñ segg maanaam buñ defal ay sikk ay rëdd si nata alfin asanata alfin atam junne wasittin ak juróom benn mene jëre ci gaddaay gi faxaratu ma ma segg ko bi saaxati ci nattukaay saaxa ba ma ko xoolee fa wajatu ma fekk ko moom dërëm boobu yu saa yu muy tolloog si tan wa xamsiina xursan saaxan mu tolloog cinquante six xursu si saaxa intaha jeex na loolu moom seeni قال اليوم إن أريد الإسلام واستطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته